borom sikkim bii waxoon na fi keroog ne moom jàngul sax faf waa jàngul di firi alxuraan mais kooku waruñ koo dóor kon kan lañ war a dóor mais non révoltez-vous quand même il est temps naka ngay xam ne man jànguma école française bi ñetti fan laa fa am ñu génne ma ma jàng tuuti kii nit a ñëw jox ma kii ne ma demal ca jumaa ja xaw ma kan jaay dem ci jumaa ji di fa firi mais yow dañ laa war a duma mais dama ne mooy xam nga ko rek mooy Père Noël xam nga ko xam na boppam te kat ji nga noonu li ma ci sikki yëpp man mii mën naa ko jur sama taaw la maa seet uh-huh. sama taaw nga ne moom la maa uh-huh. waaw yooyu yëpp dañ koy def euh, ci marketing bi la bokk pour mën di ratt nit ñi dañuy ratt rek ratt rek ci la ñuy takkee jabar ci la ñuy dund ci usurpation de fonction de nom de yow xam nga ni eh, ñi ñi toog ci plateau bii ay waay nga wax ñu wax ma mm. mi ngi sama nopp mm-hmm. waaye nag su ma dee dox doxinu ku ma wax ma wax la. Ah. doo gaaw a egg. non seulement du ma gaaw a sax soxna si. mais su boobaa du ma mat li ma bëgg a doon. waaye loolu. Ahmed Khalifa maa ngi ñëw ci question bi Ahmed maa ngi ñëw maa ngi ñëw Ahmed. Ahmed Khalifa waxee ne jàng nga waxoo dëgg. Ahmed Khalifa yow li nga xamoo ko. billaay la ñu koy wax nga man waxu la fukki at la am kon waxuloo dëgg man dama la déglu. dama ne coupé ma coupé ma coupé ma kii jar na. déedéet nañ la coupé nañ la coupé yaa ma dàq fen. ma dàq fen wàccee sa bopp. wala jëpp ma jëpp pour ma delloo la kàddu gi. Mhm. commission bi moom. Mhm. ni muy toogee. donc nga fi nekkee jàngu tos. doo doo ñu ci dara. doon nitug dara arrête waay bàyyi di trompe yow da ngaa ne doon doon nitug dara ku ku xas sa baay ku xas xalifa baay ku baay ku yaa ñàkk solo yaa doy waar waay waay yemal ñu la ci gayet déedéet yow yaa war a yem yaa war a yem boo ma wutul da nga xam ne Khalifa Niass moo ma yar. boo ma wutul boo ma wutul da nga xam ne Khalifa Niass moo ma yar te àdduna ak may dégg de. yow da nga ñàkk solo jubóol ak say mag jubóol ak say bokk jubóol ak say rakk. jubóol ak say waa kër waay waay waay waay di baaxul waay yow yaa ñàkk jom yaa ñàkk solo yow ko yaa mën a kàcc. yow xam nga ne xalifa yi duñu kàcc de. Mursid Ahmed Ayane dama ne xalifa yi kàcc mu ne yow yaay kàcc kat bu mag bi yow rek yaa xam luy kàcc yow ko foog ne ma xalifa yu mag yi fi ne nga taxaw xale su tuuti ñàkk jom di wër diw taxawaal di am lu eh, Mursid Ahmed Ayane eh, Mursid Ahmed Ayane may may ma tuuti ma del siyaat may ma tuuti ma del siyaat eh, bu ma sañoon Mursid Ahmed Ayane yow ak Ahmed Khalifa Niass ay kilifa ngeen ay responsable ngeen ngeen bañ a jël débat bi pour di ci def règlement de compte parce que jàpp naa ne loolu taxuñu fee ñëw li ñu fi tax a ñëw mooy àddina bi am na lënt lënt bu ñu am surtout ñun Sénégal te kenn ku ne sa màttilal yaa koy reyal sa bopp ëllëtiyaa sanar yow firil baatu farjaha bismillah waxal farjaha lu mu teg ci olof farjaha pay laa koy firee man ci yar waaye lan la tekki ban cër la tekki waa pay waaw waaye ñi xam bu ma nee bu ma nee pays xam lii pays tey olof xam nañu ni pays li muy tekki ci olof. Mm-hmm. pays mooy la yéen am nga. kii yor na ko taxawu taxawul lan la. Mm-hmm. papa ñu ne. mooy mooy mooy l'organe sexuel de la femme. Mm-hmm. mu ne Maria mi nga xam ne dafa téye son organe sexuel. farjaha man tekki leen lu mooy loolu. mooy lan. ki nga xam ne dafa téye pëyam ma la ko tuddee pëy ma ne cëram ba maanaam la soo organe sexuel c'est moo mot coranique c'est le Coran qui parle gis na papa xalifa boobu ni nga ko firee ni mu rafetee cërëm ba. cërëm ba ak ni nga ko firee waaye sëriñ bi bu yàlla yow daal da ngaa rafet yàlla fa ñaawal ngay rafetal. yàlla ne nga naan man nag jàngal naa see morom te dama leen jàngal ñu jaar ca yàq ba. loolu moom moom Sénégal moom ñëpp. waaw kay d'accord dama ne dama ne defal ndànk dañu nga def loolu. loolu bari na ustaas yàq doo xam dañu jàpp ne yàlla li wax dafa ñaaw waruñ cee jaar dañ ko war a tuddee ñoom la leen neex loola na nga ñaaw jënga le chirurgien c'est le chirurgien il voit dans le fa muy dugal bistro de bistro daf koy dugal Baye Khalifa yàlla li muy wax ma ñëw rek yàlla dafa ne ki nga xam ne dafa te son organe sexuel dama ne c'est une expression coranique il faut que yéen ngeen adopté wu ci expression coranique lan la Baye Khalifa baat booboo ngi fi. bu ma ñëwoon jàng si ci yow ba ñëw ba toll ci foofu ëllëti ahsanat farjaha tey nan nga ma koy firile lëfam la Hmm? lëfam la. ah noonu nga koy firi. waaw waaw. Ah, moom nag suñu laay daan jàngale te moom la. Hmm. ayca bopp. <laughs> ayca nenne nenne xam bu dee am nga soxna. Hmm. ngeen bëccëg di sieste. am nga droit par exemple massage thaïlandais. ah bon mooy mooy luy la massage thaïlandais. massage thaïlandais mooy dafay jël dënnam bii ci misaal di la ko bësalee sa gannaaw di dem ak dikk. <laughs> déedéet bokkul ak body body. body body dafay sol dara ou pas. bee nag du face à face daf lay jiital topp ci yow. mais dafay sol dara pour yiw wala du sol dara dama jëkkër ak jabar lu ñu solente. jëkkër ak jabar feeg nga fa rek c'est jëkkër jabar dara du fa ne kenn xajul seen diggante. piis xajul seen diggante ñaw xajul seen diggante. dégg nga yaram tu yaram la dégg nga. kon nag ce qui important am nga droit ci loolu su fekkee ne dafa am fondé am na droit jaay fondé nga jënd. ci bëccëgu weeru koor. Ah, waaw c'est que ji man nag li tax ma génnee loolu lii rek moo tax lu simple. ñaam samay mbokk lañ foofu lañ dëkk. waa métti ko wax ni ko. comme moom uh-huh. marié bees la. <laughs> waaw moom may na ko bu dog jot. au lieu mu naan mu dogee lekk gi wala naan gi mu dogee tamit. waaw allah. yàlla dafa yàlla dafa soxna si soxna si ci la bokk. waaw mën nga koo do mën nga koo dogee koor moom mën na laa dogee koor. d'accord merci beaucoup merci yéen tamit yi ngeen ñu ak yooyu tey ñu déglu euh, euh, yow ak Taïb Socé tey euh, suba yow ak Ndaw te ñun dañ leen doon xaar dama ne man mooy waxee ak Taïb Socé man may doomi xalifa Niass moom muy doomi Ngoyaan may wax muy wax jamais aka ah, dé déglu ma wax la doomi Ngoyaan la laajteel mm-hmm. jël leen seen caméra yi ngeen dem laaj la kër ma jëbel mm-hmm. moom Saalum Dieng moo ko yar waaw mais parce que déglu rek ndaga la njëkk way xoolal ki ko ko jàngal ca kër ma jëbel góor gu ñuy wax Cheikh Kébé Cheikh Kébé woowu sama baay moo jàngal baayam muy taalibeem dégg nga mu jógee Medina Sabax moom Medina Sabax la dëkk. fa la dëkk laajte ko. mais diine diine amul Medina Sabax amul ma ne kooku mënul ma ne école boobu doon jàngee école primaire la man ma jaar ci université yi. am sama yëf di wax toog jamais. Pape man bëgg naa la mer mooy mm-hmm. affaire càcc gi. te man na ne sàcc duñ ko dajaleel mm-hmm. xaalis. Mm-hmm. dama ne man sax pare naa pour ay avocat ñu constituer benn société dem demander ko mu rembourser cent millions yi. Ah. parce que bu dee ku sàcc ñu dajaleel cent millions. Ah. ñi xiif duñu am luñ lekk ñi feebar duñ faju ñi jàngul duñ jàng. y a des ci loolu ci loolu. mais papa mais papa man damay wax ah man damay wax en tant que jullit. est-ce que sa moromu jullit bu amee problème euh, war jullit ñëpp war ñoo taxawu pour mën a dimbali seen moromu jullit nekk ci problème boo sàccee na la say bokk dajaleel <laughs> buñ laaj cent millions nit ñi pour que bu abaat di kaso loolu la leer na. léegi man damay euh, boros duggaale foofu noonu. li nga xamante ni ñoom ñoo rek xam nga kenn forcé wu leen. kenn poñew leen dañu toog ne dañu bëgg a a dimbali diwu sàngam si nàngam waaye loolu ñëw joxe yow jàng eh, yow jàng ko fu yàlla ne dajale leen sàcc yi ba bu ñu leen tëj jàng ko waxuma waxuma dama lay laaj na jàng ko la jàngoo ko man waxu déet amuloo xub. laaj waxuma sëñ. nekkatu sàkk foofu bor la waxuma sëñ gis wax yàlla laa. foofu bor la yàlla dafa ne li yàlla wax li. foog ba mu ay d' accord yàlla na dog leen ko tuddee sàcc pour man boroo ko tuddee sàcc pour man bor la parce que kii mu ameel moo ne na ko fay ba dencalu ko yoon nekk tant que fayuloo yow doo génn léegi nag am na ña nga xamante ne. escroquerie duñ ko tayee ko mu génn càcc la loolu yow lan moo man mi da nga ne. lan moo si lan moo lan moo la si xaw a naqari. déranger la man amul lu ma ci naqari lu may ñuy dajaleel sàcc si parce que dañu encouragé càcc gi te lu Sénégal yëpp d'accord nañ buñ dajaleel sàcc yi sàcc bu sàcc nañ ko yóbbu fa sàcc yee di war a tëdd. mais fi Taïb Socé lañ fi mujjee joxel caution mu génn nga ne Taïb Socé lañ fi mujjee fayal wala dajalal ko fayal ko mu génn am na fi ba tàyyi ah, yow dañ laa dajale déedéet ah, waxuma man si ay ay ay ay yeneen i nit déedéet sàcc bu ñu fi dajaleel amul sàcc waruñ koo dajaleel saariqoo saariqatu amul dajaleel waaw beneen beneen question bi mhm. ma jox la ko mhm. parce que euh, Abba merci beaucoup si bi ñu mayee ñu dugg si transition boobu muy côté diine bi parce que école booy école exemple nit xale day ñëw dal baa ñu ne CI CP2 C1 e fa njàng yam wala ba fa université moo xam agrégation la wala lu ko ëpp. Hmm. tey jii am na ñi nga xamante ni ay maître lañ nekk yor ñuy jàng CI ñooñu si comme ni nga koy waxee ñooñu itam man dama bëgg yow nga leen di nangul seen xam-xam donte la. yaa leen ëpp xam dërët parce que toujours. moo la koy nangul fay leen may leen dafa am exemple boo joxe nga ne dafa am ñoo xam ne ay clandestin lañ yëg si gaal gi. Eh. bëgg déet Assane déet may ma fi damay tëj kaas dama leen di dimbale yow mii bokk nga ca wala bokkoo ca laaj ma rek. dama lay laaj bokk nga ca wala bokkoo yow laay delloo laaj bi déet xam nga bokk nga ca dimbale naa la yow ah, bokk naa si fan am na wala amul déet bokk naa si fan bokkoo ci ustaas yi may dimbali dimbali ah si ban domaine ah ban domaine dañuy waxtaan si tali lañ ne ak ban domaine. ñëwoo ni ma da ngay génte naa la dimbali. waaw déedéet waxuma la dimbali ma de. dama ah, ne ah. dama am sama doom. Ah. yëgal la sama njënte comme ni ma la ko yëgalee comme nii. ma def nan man doxal naa la sa yitte. waaw dégloo am nga ay yitte yoon ma doxal la ko ba taay. waaw ma def lan waaw nga nga nga jox ma li nga xamante ni jàpp nga ne moom nga ma tere la lan laa la jox lan nga ma jox. Ah. jox nga ma xar. Ah. jox nga ma nag te wax naa ko. waaw déedéet doo doo bougé de man doxal naa la soxla ba taay yi woo nga ma am soxla ma ñëw nga yónni ma ba taay yi ma doxal la ko. waxal soxla te waxuma ko. Ah, déedéet wax ko dama laa may wax par respect. déedéet dama la dugg si si. dama laa yónni nga takkal li ma jabar. déedéet waxuma takk jabar wala nga ñaan li ma xaalis. déedéet waxuma loolu mais yitte la non non arrêtons ça dama ne. mais loolu yitte la dama ne dama ne. loolu yitte la li ma wax Alioune Ndiaye mii mën na ko seede moo ma daan woo ba tàyyi mu ngi nii toog bu ma fenee nga ne ma damay fen. non non c' est pas waaw léegi c' est à dire que man la mafia des oustaz yi nga xam ne dañ ciy takk jabar di ci ñaan di ci wut paasu màkk kon nañu kii la naan maa ngi gërëm diw maa ngi nuyu maa ngi nuyu diw nangam nangam loolu dafa war a dañ xam-xam bu amee dañu war a déglu ñu koy wax ñu wax ko mën na am débat ci xam-xam. dama yow lan moo tax lan moo tax oustaz yooyu noonu may ma rek may ma rek lan moo tax oustaz euh, euh, ndooy may ma rek ndooy may ma rek dañuy waxtaan dañuy waxtaan rek ndooy may ma rek dañuy waxtaan waaw ma yeggal rek xaaral ma wax rek waaw may ma rek ma bu ñu personnaliser débat bi dañ fiy ñëw sénégalais yi dañuy seetaan non xam léegi man li ko personnaliser mais buñ toogee bëgg jaadu loo xam ne ëllëg seen i doom danañ ko xase ak seen i sët ne yéen ndeke dajaleel ay sàcc ngeen fi nekke woon dañ leen a critiquer parce que ñooñu ngay critiquer am na ñoo xam ne am na ñi ngay critiquer amul ñoo xam ne am xam-xam buy defar sàcc amul oustaz xam-xam boo xam ne sàcc bi dañ koy jombalee fañ koy war a yóbbu amul waaw oustaz il man de bu dee man la man bu ma sàccee nañ ma jàpp waaw d'accord léegi sàcc nañ ma jàpp waaw waaw léegi loolu loolu leer